li ñu bëri doon jeexi jaaxaa ndax wér na wala wérut loolee nag ki nga xamante ni moo di gouverneur bu Ziguinchor daal dina koy confirmer ndax mooy démissionné ki nga xamante ni moo di premier ministre bii di Ousmane Sonko. ki nga xamante ni moo di Mor Talla Tine mi nga ni moo nekkoon sax gouverneur foofu sa Ndakaaru Ndiaye ginnaaw changement yi nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko nekkoon démissionné na fi nga xamante ni moo di si mairie bu Ziguinchor ginnaaw bi ñu ko falee janvier ba jonne yàlla tey jii moom moomee di Ousmane Sonko nee daal ndigal li nga xamante ni moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di joxe daal mooy képp koo xamante ni dem nañ la ministre xamante mooy seen ndombal tànkam moo xam nga nekkoon li nga xamante moo di président conseil départemental wala sax nga nekkoon fi nga xamante moo di sa assemblée nationale maanaam député wala nga nekkoon maire dañuy bëgg nga daal di tekki li nga xamante moo seen ndombal tànk loolee waaye nag ginnaaw bi nga xamante ni fan yee nag annoncé woon nañ ko ne Ousmane Sonko mii nag te tekki na ndombal tànk foofu sa Ziguinchor ñu bëri nag doon jeexi jaaxa ndax nag Ousmane Sonko def na ko wala déet ndax gisuñ doon dara loo xamante ni moo ko doon confirmé muy maanaam benn lettre boo xamante ne officialisé nañ ko waaye ki nga xamante moo di Mor Talla Tine du gouverneur bi Ziguinchor moom mii nag tey daal dinay génn confirmer li ni mel léegi nag la ca des nag mooy ana kan moo ko war a wutu sa post boobu noonu